waaye ci waxtu bi ñuy wax nii nag dafa mel ni ah, ndaw yi du ñu bëgg rek mooy ah, policier daal di daal di daal di daal di foofa ah, lii léeg la ñu suñu correspondant bi nekk sur le sur le terrain daal di daal di xam ne ni ngeen ko gisee ci image yi noonu nag dafa mel ni xale yi ba léegi fa ñu taxawee woon ba léegi kon fa la ñuy wéy di di taxawandi donc di di continuer vraiment di jàmmaaloog ñi nga xamante ne ñoom ñooy takk der yi foofa léeg la ñu bëgg duñ faa gis takk der donc lii lée ñoom la bëggatuñu gis vraiment see dellu vraiment euh, fa ñu jóge woon di jaajëfal bu a baax Cheikh Maguette euh, Aziz Fall Aïcha Sonko El Hadji Amadou Ka euh, Jean-Charles Delafort ak Cheikh Fall Pape Sambou ma ngi lay jaajëfal Lamine Diatta fàttewuma la Chérif Ndiaye depuis l'Espagne maa ngi lay na ma seetaan <laughs> merci merci beaucoup ah, ah, Bammel wét na ah, Serigne Ndiaye itam maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax a baax a baax a merci pour les cœurs vraiment gentil ak képp ki nga xamante ne euh, ñoo ñuy seetaan euh, jamono ji euh, Ibrahima Playa itam maa ngi lay jaajëfal bu baax de di xaar keneen ci 77 810 90 90 salaamaaleykum allo salaamaaleykum waaleykum salaam sëñ bi ngeen def ñugiar foo ñuy woowee Mali Bamako naka waa Bamako sant yàlla bu baax a baax alhamdulilah baa lépp ngi dox waaw ñu ngi sant yàlla bu baax macha allah acca bismillah ci waxtaan wi waaw bi rafetlu baax baax émission bi di wax ne ñëwuñu pour tontu kenn waaye dañuy wax xalaat ñu waaw dañu baal nga yokk kàddu gi ndax dégg-dégg bi gën a mën a yem dama ne dañuy ñëwuñu pour tontu kenn mhm. mais dañuy wax suñu xalaat mhm. eh, d'abord mooy képp ku bañ ni tudd Macky Sall kon da koy wax nga wàcc suñu bopp réew Macky Sall avant 2012 avant muy nekk président Sénégal kenn daanu ko tudd. Mhm. ndax soxluñ ko na tudd mhm. bi muy nekk euh, nu mu tuddati quartier boobu mu nekkoon jëppal xaw ma di luye suñu yoon nekk woon ci mhm. dañ koy jox suñu alal dénk ko. dañoo am droit ram kon bu ñu amee ko dañ ko koy wax. ñun la kenn moomu ku bëgg wax lu neexi nit ba tax nga naan ay bu kenn tudd Macky Sall dañ koy tudd tey ba suba. Mhm. ndax moom moo nekk njiitu réewu Sénégal yi ñoo suñu alal ñu jox ko ko mu séddale ko séddale bu maanduwut jël ci suuf bi jéngal ko jéng bu maanduwut moom moom dana moom dana mbirum yoon dana Macky Sall nekku ci. loolu mhm. Macky Sall la moo tax mu ne Amadou Diouf moo na ndaxtal li muy wax bu fekkee ñoom bu fekkee yi neexul ñun ay xale yu ndaw lañ perte wuñu ko xam nañ ko. d'accord. ma mu nag naan su ma ànd sama xarit tubaab Sénégal mhm. mais am na ñoo xam tey xam mu déggee lañ ku complexe ñoo naan ay su ma ànd sama xarit tubaab dañuy kontaan moo tax naan la yàq lañ ko fii képp ku fi yéeg. da nga jaarale mbir mi ci yoon Sénégal dañuy jàmmaarloo ak yow ku mu métti nag nga génn jàmmaarloo booy booy defal la comme ni ñu defal comme ni ñu defalee taxeur yi day uh-huh. nekk fii di ma sonal li ñu naan waaw gars yi dañ naa ngay ba kilinaw ku mu neex wootee sax euh, sans énergie sax wootee sax suñu yoonu nekk ñun complexe wuñ kenn ñun dañoo def bu ñuul dañoo uh-huh. fier nekk ay africain ñun dañoo fier nekk ay beneen africain dañoo fier ànd ak ku mel ni Ousmane Sonko amuñu ci regretté laqatuñ ci uh-huh. mais nag la plupart soo fekk da nga dafa wax ci biir wax mu ne Sénégalais dafa am ne dafa am ñor la ñoo naa fekk. Uh-huh. moom moo ko wax. Uh-huh. jàpp naa ne naa fekk bu mu xoolee ba gis dëgg ñi moo koo wax ñun suñu gisee dëgg lañ ci duutuñu baaraam Ousmane Sonko bi ñu àndal ñu dugal défendre bu ñu wóolu ne moo tooñ duñ ko défendre. d'accord ñaata nit ñoo nekk Sénégal ñoo nekk Sénégal def lu raw lu lu ñu jéem a ji Ousmane Sonko ana ñu. ñun dëkk su def na suñuy milliards yi a nga tabax ay hôpital am nañu parce que ñoo ko dañu fontoo naan ñu ay xaw ma Sénégal dañoo réew. Ah. la Sénégal dañoo réew yaa gën a réew sa bàyyi moo gën a réew Sénégalais. sëñ bi sëñ bi tamit sëñ bi. Sénégal Sénégal seen i moromu bàyyi ñoom ne la seen moromu réew moo ñëw Sénégal dañoo réew yéen yabaate la nekk bitim réew war nga tuwaan Sénégal dañoo réew. Ah, ñu réewee sëñ bi ma jëlee kum yar na yar doomam allo maa ngi jégalu bu baax ci kàddu yi nag aw ma aw ma woon envie waxee nii mais fu ma jaar contrôle ci dafa yaraate ñàkk xam-xam la Euh, vraiment vraiment yéen tamit yéen ñuy seetaan vraiment euh, di lañ daan intervention yi euh, aussi vraiment muy gën a responsable ñu xam ne vraiment ci ci ci média la ñuy wax te wax gi itam fu nekk lay dem ci àdduna nit ñi dañuy bàyyi xel aussi bu ñu bu demee jóg ba ñu ba ñu ba ñu waxee xol di mer vraiment loolu taxul jóg waxtaan wi waxtaan wi soppante xalaat joxante xalaat wax li nga xamante ni moom mën a jëriñ réew mi suñ suñ ko jàngatee ñi nga xamante ñoo fi nekk di ñu bàyyi xel aussi mën mën a moo tax a jug waxtaan wi ah, ndax kuy taataan sa xalaat xalaat xalaat xalaat wa rafetin lay lay la cee vraiment même su fekkee ne bokkuñu euh, fi ñuy waxee bokkuñu camp bokkuñu farine mais tamit kàddu gi chaque fois muy rafet rek ndax tamit comme je l'ai dit on est tous des on est tous euh, da ngay dugg vraiment nga yëkkati kàddu yi même su fekkee ne mer nga sa euh, voilà quoi sa dënn jóg na mais nga wax ko daal ci anam nu mu gën a rafetee vraiment mbokk moom ñu ngi koy jaajëfal mais beneen yoon vraiment ñu ngi koy ñaan rek ah, voilà a a Grand Yoff salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ maa ngi wootee ba Amérique. naka waa Amérique. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di leen sant yéen it. ci opportunité bi ngeen ñu may. allo. Mba Mbaa lépp nga dox foofa Amérique. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di bàyyi xel bu baax a baax situation bi ci réew mi. Mhm. ndax ñun amuñu lu dul réew wax dëgg yàlla lu fa pour suñu xel mën a dal faaw jàmm am ca dëkk ba uh-huh. te jàmm nag du nekk fu dëgg nekkut uh-huh. maa ngi sant bu baax a baax waa jooju jën doon wotee mari daanaka li nga bëgg a wax lépp waxal na ma ko fa uh-huh. waaye bëgg a xam ne dama bëgg Sénégal ñu xam ni jàmm du nekk fu dëgg nekkut dëgg gi mooy président Macky Sall la kenn waxul dëgg wala nanguwut a déglu ñu koy wax dëgg. Uh-huh. j'ai l'impression que sax dafa nanguwut a déglu ñu koy wax dëgg parce que en général ñi ko waroon a wax dëgg ñëpp isolé na ko isolé na leen. Uh-huh. ñam àndaloon ba mu wut ñun yëpp mu topp ci ginnaawam ay ñoom Moustapha Cissé Lo ay ñoom Moustapha Diakhaté ñi nga xam ne si jàpp nañ ni ay nit ñu ko ñu mën a taxaw ak moom jàkkaarloo moom wax ko dëgg ñëpp. Macky uh-huh. Sall da leen a isolé. jël ay ñeneen ñu kenn xamul fu mu ñu di ko ñu di ko fa euh, ñu di ko ñu di ko ñu di ko ñu di ko sàllangam taari wam rek mu jàpp ni mooy buur moom te ñu Sénégal ku bëgg a jiite da nga jiite ci dëgg ak ci yoon ak ci ay sart mais hmm. pas nga bëgg ñoo indi maam ya daan dunde bu njëkk bëgg ñoo jàppe comme ay bëgg a nekk euh, roi duñ ko nangu hmm. voilà moom daal li ma ci bëgg na wax daal moom mooy hmm. Macky Sall boroomu caq du xeex ak borom baatu neen mhm. te sénégalais yi daj te dinañ sàngu de mais kenn nelawut lu ñuy def rek xam nañ ko bu ñu leeral ni bu leeroon sénégalais yi Sonko mii daa tooñ mhm. kenn bu topp ci ginnaawam di xeex mais dañoo gis ni dañ koo tooñ wala dañ koy dañ koo bëgg a isolé uniquement ci ci ci ci ci ci ci langue bi man waxuma sax ci élection yi ñu jëm mais ci langue politique bi yëpp lañ ko bëgg a que dossier bi bu ñu ko ci condamné moom daanaka ay dix ans jëm kaw loolu mooy dootu doon mooy dootu doon dootu dootu bind ci liste walla ku bindootul ci liste mooy doone ten ne ten ne ku binduwul ci liste yi mënoo nekk candidat mooy dootoo dootoo nekk candidat ci Sénégal mhm. pour lan ku sénégalais am ci moom yaakaar mu ne la doo bokk ba pare li ma gën a naqari ci sénégalais yi da ngay déglu ñu naan xeex bi du ci mbedd yi ci carte yi la nañ wuti carte bu bisu élection yaa ñu dem voté waaw léegi bu ñu xeexee bu ñu demee wuti suñuy carte ba pare. Mhm. di xaar bisu élection ya kañ demee te voteel président bi nañu kooku du fi bokke te tegu ko lu dul ci bànneexu bakkanam. <laughs> d'accord mais léegi luñ bëgg affaire ah. moom daal vraiment maa ngi jégalu bu baax ci kàddu ñi nag waaye daal. moom am nañu naqari trop trop trop trop trop trop. merci merci beaucoup jërë ngeen jëf. merci beaucoup merci ah di ko di ko jaajëfal bu baax a baax di xaar beneen réaction ci 77 810 90 90 di euh, numéro bi nga xamante ne ci ngeen mën a woote di joxe seen xalaat.